li li ko waral dinaa bàyyi maire Sodo mu wax ko mu wax ko ci olof dinaa ci tënk tuuti rek ah ministre de la femme dafa am financement yu mu waroon a indi lu mu waroon a joxe bon dès le départ damay wax genèse problème bi fi mu jógee genèse problème bi fu mu jóge tey ku gis lii xam ne jigéenu département de Mbacké dañoo génn les authentiques du président Macky Sall dañoo génn parce que nag dañoo sonn ci buumum nooteel gi ñi buum madame Mbacke euh, yor SEDAF muy këru jigéen ñi di ko xeexe jigéen ñi parce que nag dafa am lu am ba des woo nañu ne nañ jàppale Ndeye Saly Diop Dieng ministre ñu lànk ne ko ñun nous som Macky Sall président Macky Sall lañ doon jàppale démb ak barki démb mu wëlbatiku ne nañ ko jàppale parce que nguur gi mu ngi jeex président Macky Sall ak toogam wóoraatul moom moo ñu ko wax ñu ne ko ñun ay Macky Sall lañ tey ba suba bi mu xamee ne lànk nañ loolu ñu laaj ministre ministre dëggal loolu ne nan ànd ak moom parce que président Macky Sall bu demee keneen kii wutu président Macky Sall su ñëwee dina ko mën a fal mu toogaat ci nguur gi continuer di continuer di di di di di mener ay activités. première liste dafa génn ñu def ci ay femmes pour ñu financer leen liste boobu bi mu génnee man ma ci woon responsable yu mag yi bokkuñu ci jeunesse bi bokkuñu ci woon léegi bi liste boobu génnee biñ ko yëgee ci benn panel lañ ko yëgee. léegi bi ñu yëgee ne financement dafa génn te waa Touba responsable yu mag yi génnuñu ci jeunesse bi génnuñu ci. financement yi nag moo waral lépp financement yi nag moom ministre bi mu ñëwee yëkkati Touba une femme un masque jigéen ñi dañoo boole lu ñu am ak lu ñu amul boole lu ñu mën ak lu ñu mënul génnee seeni dërëm ànd jàppale ko muy defar politique am ñu ànd jàppale ko te xam ne président daf ñoo ñor te xeex mbas mi ñor ñu ndax dafa wàcc te mu xam ne ñun ñëpp la engagé bi nu defee loolu balaa Touba une femme un masque jot. madam Mbacke génn na ak ay magu yam ànd ak ñetti nit ñoo xamante ne si ñoo koy taggali maamam di ko sàmm mbayaanal ñi may wax xam nañ ko ñu ngi ci panel yi di wax lu leen neex dégg nga ànd na ak ñoom Kumba sek ànd ak ñoom ñaana jeng ñoo xamante ne si ba ñu liggéey ci parti bi dem ak barki démb mu newuñ fi président Macky Sall depuis ca dekkal ngor ga lañ nekk ak moom ak léegi defe naa ne ñun kanam yi taxaw ñu ànd sunu yaay Soda Jeng mii ànd ak madame Ndiaye Mariama Diallo président Macky Sall kooku kenn du ko wax yooyu jigéen mu ne ñooñu ñooy ñan financement yi def ñu cee joxul parce que nee na financement yi ñun liggéeyuñu e waay waay waay nañ wàcc ci teen yéen journaliste ngeen xool dañoo yor suñu place ñu ne petite et moyenne entreprise la ñun dañoo yor suñu ay place took lu mat 4 mois liggéeyuñu kon financement yi su ñëwee su dee 80 pour cent yi nee nañ administration la 20 pour cent yi war na wàcc ci politique bi mu wàccee dafa jël ay nitu boppam li ñuy wax bu ngeen ko saytoo yéen journaliste ngeen gis ko ñam ko jox yelloowuñ ko ministre finance ne leen fi bu njëkk ñu jël ñu lekk bi nga xamante ne si nee nañ képp ku amoon financement lekk bokkoo ci yëf ñoo ñu dugal ñii dugal seeni i doom ñii dugal seen i xarit ñii dugal seeni seeni seen i seen i rak nee na ñun fay ñu ñun on le dit haut et fort ñun mosuñoo jot financement état ñu yàgg di xeexal état kenn mosuñoo dégg ñu kaas parce que président Macky Sall daf ñoo ñor liggéey gi muy liggéey Sénégal ñor ñu ñu nekk ci ginnaawam ministre de la femme nag jokkoo na ma ak moom parce que démb maa ngi jokkoo moom ay 2 heures du matin li mu wax mooy madame Mbaye Mariama madame Mbacké du moins Mariama Ndiaye moom lu mu def moo ko ko sant ce qui veut dire que ñoom ñoo nekk ci yëfi ñun nag dañuy interpeller le président de la république Macky parce que lii premier pas la moom li ñuy def mu ngi ci kanam dañuy continuer le combat continue li nu bokk te war ñu cee boole dañu ciy boole jàmm ne boy bu nu ci boole te ñu bokk ci askan wi ndax nag ministre de la femme bi mu fi toogee société civile parti opposition parti au pouvoir ñëpp lañ cee bokk. ñun Zahra Iyane Thiam financement am gisuñ ko jotuñ ci ñun jotuñ ci ñu ngi nii toog daan Soda Dieng mu ngi nii jàmbaaru président Macky Sall la madame Ndiaye Mariama Diallo bi muy xeexal président Macky Sall mu des gor di gar mi kenn masu koo dégg mu wax du onk mu nga nee kenn boolewu ko ci dara kenn masu koo boole ci dara mu ngi nii toog. kii président Macky Sall du ko xool ne kan la kii président du ko xool ne kan la xam nañ ne li ñu fi def injustice totale la jaarale wuñu mbir mi ci yoon kumba am ndey ak kumba amul ndey la ndax lan wëlbatiku naan ñoon ah. panelu Touba une femme un masque bi ku ca génn moom madame Mbacke je le dis haut et fort bu ma ko dafa ne ku ca génn ñu boole la ci financement yi ñu lànk des parce que ñun liggéey askan mi moo ñu ñor président Macky Sall moo ñu ñor liggéey la xam président dafa fonk jigéen président dimbali jigéen yërëm jigéen jàppale jigéen ñun nag taxaw nañ nag kër jigéen gii mu yor dinu ko xeexe moom madame Mbacke Mariama Ndiaye lu mu bax lu mu bax ñu ñeer ko na jóge fii parce que naa fi jóg maanaam naa fi jóg naa fi jóg naa fi jóg